na

yéen mbokk yi di mbokk taalibe yi ñu ngi fii ci cité jàmmulaay bi di waajal ñaari rakk waaw ah, programme bu tey bi nag euh, maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tuddee euh, tey jii li ñu jàppoon mooy def durus bi waa ba waa Hizbut Tarqiyyah ña nga fa ña nga ca base ba commencé nañu jàng xasida yi ak alxuraan ji ñu war a jàng ak li nga xamante ni mooy programme ngoon bi nga xamante ni buñ ci yàlla dimbalee euh, durus bi day continuer dem waaye it xalif général day Baye Fall dafay ñëw ñu war koo recevoir fii ci site bi waaw bu ñëwee nag boo toog ba mboolem bi toog waxtaan def li ñu wax war a waxtaan ba noppi guddi gi nag dañuy fanaan Zikroulaay bu bët set suba nag mooy bis bi nga xamante ni moom lañuy màggal mooy bis bi nga xamante ni Sëñ Tuubaa julli woon ci digg géej gi waaw bu ñu xëyee suba ni ñu ko doon defee rek maanaam dañuy wàccee dañuy durus jàng arxuraan euh, ba ba ba midi suñu yàlla dimbalee bu ñu egsee ba ci ngoon si ah ñu ji di tàkkusaan euh, ki nga xamante ni moo ko jiitee mooy euh, imaamu Touba bi di sëñ Fallou Mbacke Abdou Khadar incha allahu rabbi su ko defee ñu def suñu cérémonie bi waaw ñu ngi woon nag mbokk yu di yëpp mbokk taalibe yëpp waaw ren nag dafa am événement boo li ci nga xamante ni moo ci gën a am solo mooy sëñ Muntaxa bi mu jëlee soxna Soodu Xuma jiital ko ci mbir mi daf cee boole def cee taftal waa Hizbut Tarqiyyah yi wax dëgg yàlla depuis bi avant màggal bi kuma liggéey bi commencé ba léegi bi ndig li jibee ba léegi ñoom tooguñu noppaluwuñu ñu ngi ànd ak ñu fi liggéey bi macha allah lépp mat na fa la waaw صلاتي لخيره ومني له علي دمير لو دمت سابي وارجو رداءه loolu mooy sant rek ndax mbir la moo xamante bi jàpp lu woon ne war naa mën a ne ndax màggal gi mu sësoon jóge ci màggal Tuubaa ak ni màggal toll ci yoonu murit matul euh, ay bés ni ñu bëgg a taxawal lu mel nii bu ci ndimbalum sëñ bi duggul woon du yomb te dana metti waaye biñ ci xalaatee sax xamoon sësale gi bëgg a waxtaan ak sëñ Muntaxa ci mbir mi moom ni mu ko gisee ci taalibe nga xam ne ak taalibe kenn mënu koo xiyaas ñi mu toll dafay nañu boole màggal gi ak julli géej gi muy lenn ndax di ko toxal ka daan day àdduna lan lañ ci dugg te du noonu waaye ndimbalam la fekk nañ ci wax dëgg yàlla ndax barki démb rek lañ commencé travaux yi waaye gis na fi mu toll daanaka installation yëpp mat na finition yi rek mooy ci des lan lay moquette ak yooyu waaye dañ ci war def lépp macha allah parce que sori nañ ci baax a baax a baax innovation bu njëkk bi ñaar la mooy euh, entité bu tol ni Hizbut Tarqiyyah ak li mu représenté ci yoonu murit ñëw ñu àndandoo liggéey bi loolu innovation la ndax tuus biñ ci indi wax dëgg yàlla tuus la boo xamante bi yombul te seen professionnalisme seenu taalibe seen savoir fair ak seenu xam dafay loo xamante bi kuy murit te sab xool sell xam nga ko te rafetlu nga ko moo tax bi ñu koy ndeyit indi ci tuus boo xamante bi wax yaa innovation la deuxième innovation yi mooy di ko soxna Soxna Xuma jiite ndax de tout le temps ba mu sosoo quatre vingt ba tey jaaroon na ci Mouhamadou Nazir Touré jaaroon ci sëñ Baba Gueye amoon na période de transition du naan boo xamante ni Babacar Xuma moo ko doon gérer jaar ci Cissé Mourid jaar ci Cheikh Makhtar Diouf ak ci mbàkk yu fay ñooñu ñëpp ku ci ne góor nga pour une première fois euh, jigéen jiite ko def duo ànd ko sëñ Youssou Diop ñu doxal doxal bi loolu it innovation la loo xamante bi wax dëgg yàlla kuréel gaa ngi koy doog a gis waaye lu ci ne rek gis nañ ci yokkute goo xamante bi ndax ki xam bu la diggalee boo defee rek gis njariñ li te kiy diglee muy sëñ Mountakha xam na xàmmee na ràññee ba bu diglee rek boo ca toppee rek gis njariñ ak li mu la jël rafiqi kitabullahi wal mustafa